suratu saad Makka la wàccee juróom-ñett fukki aaya ngi ceeg juróom-benn buur ne saad nee na noonu lan koy jàngee wal quraan yi géej naa ci al quraan di dikri bi nga xam ne mooy borom ak waar ballu fi nekk alladina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañu fii izzatin ñoo nekk ca rëylu ba ak jom ja wa shiqaaqin ak wuute ba kama alak naa buur ne bari na ba ñu alakee min qablihim lu leen jiit min qarnin ci maas fanaa daw ñu woote wala ta xiina manaasin yellante jamono ja di jamonoy daw waa ji boo yéemu nañ an jaahum ba dikkal leen mundirun aji waare minhum bu bàyyee ko ci ñoom wa qaala wax na alkaafiruuna yéefér yi ñu ne haada kii saaxirun jabar la kaddaabun kuy naraakoon ajaala ndax def na alaaliyat yàlla ya ilaahan mu yàlla waaxidan bu di benn inna haada naka lii la shay'un mbir la ujaabun bu di aji yéemu wa talaqa dal di boy almalaw mbooloo ma minum ci ñoom ñu ngi naan anim show dox leen wasbiroo muñ leen ala alihatikum seen yàlla yii nekki xiram na ngeen ci muñ rek di ko jaamu inna hada naka lii muy woote muy yeneen jeneen yàlla ji mooy xiram yii la shay'un la ko xam ne yuraadu dees na ko namm wala def na ko delloo ba du fi yàgg kon nag mbir la mu mu namm rek bëgg kaa def maa sami'na ma suñoo dégg bi hada ci lii fil millati ci diine ya alaaxirati yi di way mujj dinay Musaa ak dinay Isaa ñoo fi mujj mosuñoo dégg ci ñoom kuy woote benn yàlla in hada déet lii illa ixtilaaqun lu may mu nekk di aw sos wala aw fen dañ koo xalqu lu mooy loo bind rek daal di ko sos mu ngi bàyyi ko ci xalqu buñ ko tegee iftaala muy ixtalaqa mooy bind na lii mooy sos na ko ixtilaaqun aw sos la wala aw aw fen la awun si la ndax wàcceef na ali ci moom dikru alquran min bay ni naa ci suñ diggante fii la juddoo yaroo fi masul a jàngi masul sax génn dëkk bi tey mu ne dañu wàcc ci ma alquran kañ la ballu fi nekk hum ñoom fi shakkin way nekk lañ ci sikk min dikri yi ci suñ sama waar gi ballu fi nekk la maaye dooqu ba tañu mosee rek aadaab yi mbugal ma amee indahum ndax dafa nekk ci ñoom xazaayinu rahmati rabbika ndam bi yërmande yàlla al aziz ku daa ji not ci kattanam al wahaab koy maye waakoon am lahum ndax ñeel na leen mulku samawaat yi moomeel ak asamaan wala ardeeg suuf wa ma baynahuma ak li ci seen diggante fal yartaqoo nañuy yéeg fil asbaab yi ci sabab yi ji def ay sabab yéeg ca kaw maanaam ay kattan yéeg dal di wuti ay pexe ba xam jundun ñoom day ab leel lañ maa hunaalika maxzumun wala nga ne jundun ab lel la maa bu mën a doon hunaalika bu nekk foofale maxzumun boo xam ne bu ñu gañe la min al ahzaabi ci kuréye ñoom daal nuñ mën a mel rek ab lel la bu ne ak mbooloo mu nekk foofu moo xam ne mu ñuy gañe lañu mbooloo moo xam ne mu ñu mu ñu not la kaddabat weddina qablahum li leen jiitu qawmu nuuxin wa aad ak firawna zul awtaadi kay borom daaj ya wa samuud wa qawmu luutin ak nitu loot waa asxaabul aykati ak waa golba ulaayika ñooñu al ahzaabu ñooy kuréya in kullun déet képp kenn ci ñoom illaa kaddaba lu mooy mu weddi arusula yonente ya fa xàqa dal di ey mooy wàcc ca moom iqaab yi mbugal sama wa maa yanduru lan du xaar haawulaayi ñii wa maa yanduru xaarut du nekk haawulaayi ñii illaa sayxatan lu mooy ak xaacu waaxidatan guddi genn maa laha déddi ñeel ko bu fekkee ne xaacu ko dikk na kenn dootu ca mucc min fawaaqin ci teqale alfawaaqu ci luxa moo di ab diir ab diggante mën nga wax ne fii ba fële am na fawaaq maanaa xaacu gi nga xam ne ci la ñuy xaacu ak fi nit ñiy dee maa laha min fawaaq benn diggante bu yaatu du ci nekk kon booye boo nga wax diggante wa qaalu ñu ngi naan rabbanaa yàlla ajjil gaawalal lanaa ñeel ñu xittanaa suñub cër qabla yowmil xisaab yow yàlla daal balaa yowmul xisaab a ñëw booye boo nga jox ñu suñ téere te moo di suñub cër léegi ñun ñu xam fan la nuy féetee ak fan la nu nar a mujj mu ñëw ci daawud qissatu daawud alayhi salaatu wassalaam am na luñ ca nettali woon waaye nekk na qissa boo xam ne buum gi lañuy laal rek kon na waaye da ca amoon tuuti loo xam ne fii la ko téere bi doon xaare da nga dégg ci kuy gàmmo walla koy nettali da nga gis ci téere ñuy bind di wax naan daawuda dafa amoon juróom ñeent fukki jabar ak juróom ñeent mu am benn taalubeem bu amul lu mooy benn jabar waaye jabar ja yéem daawuda daawuda yebal waa ji rek muy jiite ay xare fa mu dem rek gañe mucc dellu si mu yebal ko feneen yebal ko bee boole ko ay gànnaay yu néew ak soldaar yu néew ba ñu rey ko daawuda jël jabar ja mottalee ko téeméer léegi nag mu toog ba yàgg ay malaaka dikkal ko ne ko nun dey danoo bëggoon nga àtte ñu mu ne ko lan la mu ne ko kii noo boole woon ay mbir am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awma lu mooy benn mu nangu sama benn bi boole ko bosam muy téeméer man ma toog daawuda ne ko kon kii tooñ na la ci laaj sa benn bi boole koog juróom-ñeent fukk mag juróom-ñeent ñu ne waaw loolu lañ doon laaj ñu dem ba ñu demee ñu ne daawuda xalaat ne ñii man la ñuy wax kon man def naa bàkkaar dal di jooy ñaan yàlla na ko baal ñu ne ko na dem ca xabrum ngóoram sa mu di fa jooy ba kooku baal mu dem ca xabru ba di fa jooy di fa sotti ronkoñ ba xabru ba tooy xëpp ba ab jëmb sax fa ba màgg ba tolloog moom ñu door koo baal loolu mooy xissa bi siiw ñu bari di ko wax xissa boobu nag dara amu ci wuute naag dëgg lu tax mu wuuteeg dëgg nanu njëkkee tawxiid ñun ñëpp ñu jàngoon tawxiid muy ilmul kalaam dañoo waxoon ne yonente yi maasuumuuna lañu wa ismatul ambiya yamnaahum min irtikaabi almaasi alkabira ndem yonente yi maasuumuuna lañu yàlla moo leen sàmm ba duñu def irtikaab kabira te loolu kabira la rey lu bakkan jël jabaram kon loolu jomb na amut kooku tawxiid moo ko weddi benn ñaareel bi daawuda mi yàlla di tagg ba fu mu ko wax naan ko ni'mal abdu jaam bu baax ba yàlla tagg ko noonu xam nga loolu du nekk jikkoom ñetteel bi aaye ji li mu wax ma ngi doon wax ay xar walla ay sëllu lan moo ko firi ba def ko jigéen loolu it yàqu na beneen bi moo di ne malaaka amuñu jëmm ak leer la te ci alquran dafa wax ne dañoo yéeg miir bi malaaka du yéeg miir boo nee ci biir ba lay fekk da ngay toog toog rek mu nekk fi te ñii dañ ne tasawurul mihrab comme yéeg nañ miir bi nag kon nekkul malaaka yooyu yëpp soo ko boolee mbir ma dal di yàqu lan moo am yonent yàlla daawuda day am waxtu woo xam ne dafay dem ca mihraab ba muy jaamu yàlla tëju fa farewu ak yàlla waxtu woo bu jeexee mu génn ñëw ci nit ñi ñu di ko laaj muy tontu ñuy lay muy àtte bu loola jeexee nag mu wéet ak boromam dem ca mihraabam tëju ñaari gaay nag ay sàmm lañ ñu boole woon seeni xar kale ëpp ko doole nangu bennam ba boole yosam muy téeméer waa jaamul dara ñu poñewante nag ñëw ñu ne daawuda fatu na ma nga ca mihraab ba ñëw ñu ne fokk ñu fekk ko fa ñu daldi yéeg nag miir bi ne cirib fekk ko ci biir daawuda ne bërét li ko njëkk a tiital mooy lu tax ñu ñeme koo fekk fii kon li ko tiital ba muy ba muy sujjóot moo di ne ba mu ne bërét xam nga daawuda ku am kattan la ku mën a xeex la depuis ba mu reyee jàllootaak léegi xam nañ ne ab xeexkat la woon mu ne bëreet nag yittewoo dal ci kaw ñooñu pour rey leen lu tax ñu di ko def lii far yàlla téye ay cëram ba deful dara ñu laaj ko nag mu àtte leen ba ñu demee nag mu daldi tuub jéggali boroomam ndax li mu doon éy na ne dana dal ci kaw ñooñu lu tax ñu koy fekk fii ci béréb bii ci waxtu wi loolu lu simple la loolu rek moo amoon moo tax buur ne was bir mu ñal yow yonent bi ala ma yaquluun ca la danañu la wax ka li ñu lay wax muñ ko te nga fàttaliku la daloon daawuda ba mu muñ ba dalul ca kaw ñooña yewit defal noonu waskur tuddal abduna suñu jaam ba daawud zal aydi kay borom may ya kay borom kàttan la ak xéewal la daawuda borom kàttan la woon innahu naka daawuda awaab delluwaakoon ci yàlla la ku bari lu muy tuub la innaa ñoon saxar naa tàggat nañ aljibaala doj ya maaw ñu ànd ak moom yu sabbix na ñuy sabbaal bila ashi ci ngoon wala ishraaqi ak ca fenku jant mooy ca suba wa tayra ak picc ya maxshuratun ñoom ñépp ñu ñu fanga lañu ñu ànd ak daawuda kulun képp awaabun way dellu lañu la wa ñeel ko ci sa la wa ñeel daawuda ànd ak moom ci sa baal wa shaddadna dëgëral nañ mulka woo nguuram ga waa tey naaw jox nañ ko alxikmata xam-xam buy jëriñ wa fasl xitaab yi ak wax joo xam ne day teqale ngir leer mooy fasl xitaab wax joo xam ne suñ ko waxee rek mu teqale ñaar ñu doon wax léegi nag waal ataaka ndax yow yonent bi dikkaloon na la naba ul xasmi solog way xuloo ya i tasawaru waxtu wa ñu sataxloo ba yéeg almihraaba ca mihrab ba i daxaloo ba ñu duggee ala daawud fa fasia mu dal di tiit minum ci ñoom xaalo ñu ne ko laa taxaf bul ragal bul tiit ndax ñun xasmaani ñaar ñu xuloo lañu rek baxa tooñ na baadu naa leen na ci ñun ala baadin ci ñenn faakum atteel bay na naa suñu diggante bil xaq ci dëgg wala tushtit te bul jeng wax dinaa nga jubal ñu ila sawaayi siraati jëm ci yoon wu jub ina asa kii axi sama mbokk la lawoo ñeel na ko tisuun juróom-ñeent wa tisuuna ak juróom-ñeent fukk naajatan ci ay xar naajatu moo di ay xirfaan mag ñi daan wax ay wëllu waaye du wuloon i nag nag wali ñeel na ma naajatun benn xar rek laa am man bu jigéen waaxidatun bay benn fa qaala mu ne ma eg fil niiha jox ma ko wa azani mu not ma fil xitaabi ci wax qaala mu ne ko moom daawuda laqad dalamaka kii tooñ na la kat bi suwaali naajatika laaj sa sa xar mi ilaa ilaa ni aaji yi jëm ca xaram ya waaye loolu day am ci boole alal inna katiran lu bari min al xulata ci way jaxase ya la yabxii duna tooñ baaduhum ala baadin te ñenn ña ila lazina lu may ñi nga xam ne amonoo gëm nañ wa amiloo ñuy jëf asaaliyati farateeg naafila yi wa qalilun lu néew la maahum la ñoom wa danna jot na daawud annama fatannaahu naka finnaal nañ ko daawud na tekk nag ba yàgg mu ne man mii yàlla dafa ma doon nattu ba xam ndax ñii bu ñu ma bettee danaa jox xeex ak ñoom wala déet mu daal di tuub wastaxfara mu balu rabbahu boromam wa xarra mu rot raaki an di aji rukkoo wa anaaba mu yaaji dellu ca boromam kat bu mag boo xam ne bu ñëwee ci xissa bi noonu la koy waxee naan daawuda di jooy di jooy ba suuf sa tooy bee ab jëm ba sax ca xam naa moo néew lu mu xam ci science ronkoñ dafa wax xat fu mu tooyal dara du fa sax xam naa xamut loolu loolu kenn waratu ko wax xafar naa ñu baaloo ñeel ko zalika loolu waaye na lawoo naka ñeel na daawuda indi naa fa ñun la zulfa jege yàlla wa xusna maa bin ak rafet ak dellu yaa daawud inaa ñun yàlla jaal naa ko def nañ la xalifatan ngay xalifa firaar di ci suuf faakum attel bay na naa si diggante nit ñi bil àq ci dëgg wala tattabi bul topp alhawa baneex fa yudillaka kon mu réeral la an sabillahi ci yoonu yàlla ina alladina naka ñi nga xam ne yudilloona ñooy réeral wala yadilloona danañu réeral an sabillahi ci yoonu yàlla lawum ñeel na leen aadaabun mbugal shadidun mu daa ji metti bi maa nasu ngir lu ñu fàttee yowmal xisaab fàtte gi ñu fàttee bés pénc ak kañ lay ñëw ci la loon loolu ci la leen jógee ne fokk rek bés dana ñëw ku liggéey lu baax ñu fay la ku liggéey lu bon ñu yitt la mu ne kon wa maa xalaq naa binduñu asama asamaan wal ard ak suuf wa maa baynahuma ak li ci seen diggante baatilan ngir caaxaan defuñ ko ngirog neen zalika yaakaar nag ne dañ ko bind ngir caaxaan dey dannu ladina kafaru mooy njoortal ñi nga xam ne dañoo weddi fa waylun mbugal wala xurwa ca safara li ladina ñeel ñi nga xam ne kafaru weddi nañ mën a naari ci safara am na jaal moo ndax danoon def ladina ñi nga xam ne amanu gëm nañ wa amiloo ñu jëf asaalihaati farateeg naafile yi kal mufsidin ñu mel ni way yàq fil ardi ci suuf am na jaal moo ndax danoon def almuttaqiina way ragal ñi yàlla kal fujjaar yi ñu mel ni ki kaccoor yi loola du mën a nekk kitaabun lii téere la anzalnaahu wàccee nañ koy léegi jëm ci yow mubaarakun mu nekk di lu ñu barkeel lii dabbaru ngir ñu settantal aayaatihi ay aayam wali yatadakkara ak it di waaru ci moom ulul albaab borom xel yu sell yi bàyyi na lool mu ñëw ci qissatu suleymaan tuuti ci moom yonte yàlla suleymaan alayhi salaatu wassalaam dafa nekkoon ku bëgg ay fas fas yi yemoon na ko lool ndax da koy toppatoo bu fas yi màggee mu takk leen ànd ak i soldaaram nag ñu dem di xare ji di jihaar ci yoonu yàlla benn bés nag am na julli gum daan julli ci wàllu tàkkusaan ñu wan ko nag ay fas mu mel ni feet la ñu di ko gaaral fas yi ci kanamam fas yi di ko romb mu di ko xool di ko xool ba mu yàgg ba jant bi far so mu fàttee julli julli gi mu daan julli ci waxtu woowale mu daal di ne fas yi day ñooy sama seytaane ndax ñoo ma teree julli sama julli ga kon nag ñaari ixtimaal la ko gaañi xissa ñu ne mu ñaan yàlla nañ ko delloosil jant bi ci kaw mu julli tàkkusaan loola am nañu ko wax waaye du noona li mu doon mooy dafa wax ne nañ delloosi fas yi ko teree julli ñu jaaraat ci kanamam fas wu ko romb mu rey ko mu jël jaaseem dagg baat yi wala mu dagg siis yi tànk gi ndax rafetaayu naari góor yi ci tànk ba la ak ci loos wa yooyu la doon xool bañ tere ko julli loolu mooy benn taraf bi ci xissa bi kon nag rudduha damir jooja delluwut ca jant ba waaye ma nga dellu ca fas ya ñaareel bi dañu daan xissa naan suleymaan dafa amoon benn jaaru jaaru ba ci la xaatim nga nekkoon ñu ne ci la nguur ga it nekkoon dinañ jaaru ba buy dugg ci bere bu fajukaay aajo da koy bàyyi ci bitti nee nañ mu bàyyi ko ci bitti rek jinne yi mu yëlifoon benn jinne daal di ko ci jël ñu ne saxru la daal di jël jaaru ba takk ko rek daal di melaat ni ni Suleymaan Suleymaan génn kenn xàmmeetu ko jinne ja nag toog ca piliyaan ba daal di nekk Suleymaan yore kër gi yore soxna yi yore nguur gi yore commandement bi nee na loolu nekk na ci diir boo xam ne bu bu yàgg la ñu ne loolu la yàlla di wax naan alqa ala kursi yi jasadan ñu ne loolu la ñu ne léegi nag yàlla dimbale ko ñu demoon géej doon wuti jën jënd wenn jën ba ñu indee jën wi ndekee saxru dafa jaar bi daf ko rot réer ko moom it jën yi wan na ko ñu jënd jën ci marché ba dog ko xar ko fekk ci jaaru bi Suleymaan jotaat ab jaaroom door a nekkaat yonent melaat ne mu meloon loo nettali woowu nag ab film la ab film dong la waaye bokkul ak li alquran di wax loolu daal amul ndax ku toll ni yàlla mënul ab yónni yónent jël yónent gi di ko def ci wiyet wala ci jaaru loolu xel du ko mën a nangu ñaareel bi Suleymaan ni mu yëlifi woon jinne yi benn jinne ñemewu ko woon ba di jël jaaroom ak di toog ci bérébam kan moo leen wax sax na Suleymaan amoon nab jaaru wala amu ko woon en tout cas alquran day waxutoon ne am nab jaaru léegi lan mooy lan moo indi sànni nañu ca kaw gàngu naayam ga aw yaram loola soo demee ci saxiixay ni Buxaari yi ak Muslim dañoo nettali ne li waral loolu mooy fitna nattu bi yàlla nattu Suleymaan dafa géñoon ne tey jilee juróom-ñaar fukki jabar yi mu am yépp mu géñ ne dana tëdd ak ñoom ci génn guddi ci guddi gi te ku ci nekk dina ci ëmbee te góor lay jur ñooñale yépp dafa bëgg bu ñu juddoo mu nekk juróom-ñaar fukki soldaar mu ànd ak ñoom ci jihaar ji mu loola mooy nattu bi nga xam ne yàlla nattu na ko ko mu toggoo benn bàkkaar boo xam ne bu mag la mooy loolu mu géñ waru ko woon a géñ mbir ma far amut jote naag ñoom naam waaye kenn ëmb ca far kenn rekk ci ëmb kooka la mu jur di génn walla ak nit benn loxo ak benn tànk mu toog nag ci piliyaanam moom Suleymaan mu mel ni yaram wu amut ak ruuxu di xalaat ci bakkaaram beeg li mu yenoog li mu toggoog li mu def loolu moo tax ñu ne teg nañ ca gàngu naayam ga wenn yaram moom moo fa toggoon mel ni yaram wu amut ak ruuxu ndax tiit ci loolu nga xam ne defoon na ko loolu lay wax naan wa am naa may nañ li daawud suleymaan nicma baax na al abdu jaam bi innahu moom awaabun delluwaakoon la ci yàlla is urida ba gaaraleef ali ci moom bilachi yi ci ngoon assaafinatul jiyaat kookit dafa jiital sifa ci mawsuuf dafa waroon a wax aljiyaadu assaafinaat aljiyaadu moo di naaru góor assaafinaat saafina nag mooy ni naaru góor di def taxawee ñetti tànk yëkkati benn bi lem ko looloy saafinaat aljiyaadu ay naari góor assaafinaat ye di way lem benn tànk ba te taxawee ñett ya mu di ko xool fa qaala mu ne innii man dey ahbabtu bëgg naa xubbal xayri sopp aw yiw maanaa jihaar ak ak naari góor loolu laa bëggoon ba di leen seetaan an dikir rabbi walis tudd sama borom xata tawaarat ba daldi ba mu daldi nëbbu bil xijaabi ci kiiraay ba bu nga xamee ne nag xool na ko di ko xool ba mu nëbbu mu ne raddu rudduha delloo si leen ko ay ruddu haadihi lxayl ruddu ilayya haadihi lxayl loolay rudduha alayya fa tafiqa mu xaraf masxan ma ngay masaa di dóor bi suuqi ca peer ya wala anaaqi doq ya wala qad fatannaa finnaal nañ suleymaan wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca gàngunaayam ga jasadan aw yaram wu fa nekk mel ni amul ruuxu su ma anaaba ñoom nag yaram woowu lañ doon firee ne mooy jinne ja su ma anaaba mu dellu xaala mu ne rabbi yàlla waxtu li yàlla nga baal ma waab lii te nga may ma mulkan nguur laayen baxii du yàlla li aadi ñeel kenn min baadi yi sama gannaaw innaka yow anta yow alwahaabu yaay ma yewaakoon fa saxar naa ñu tàggat la woon ñeel ko reex a ngelaw tajri muy daw bi am rii ci ndigalam ruxaan muy aji nooy ay su asaaba fu mu jot wa shayatin ñu jox koy seytaane muy jinne yi kulla banaayin bépp jinne bu mën a tabax nga ñëw di ko tabaxal wa xawaasin ak képp koo xam ne sous-marin nga sous-marin mooy nuurukat yi wa xawaasin ak aji nuuru waa xari naak ñeneen ñoo xam ne mu xari nii nañu ñu lënkale lañu filasfa di ci njoñ am ci jinne yoo xam ne bu ñu ko dëngee da leen di boole ñaar ñaar joñ leen haasa lii ataawu naa suñu may la fam nun bu la neexee nga xéewe ko nga ñaxe ci awam sik wala nga jàpp bi xeyri xisaabin ci lu dul benn xisaab wa inna lahu naka ñeel na suleymaan indi naa fi ñun yàlla la zulfa ak jege wa xusna maabin ak rafetu delluwaay mu ñëw ci ayub ayub foofu leen bàyyi woon ban yëgsee ci xisam ba moom kenn ci ambiyaawu bani israila la bokkoon ba ñu ko yónnee mu toog ba digg guddi mu ne bëret bëgg a jóg julli walla bëgg a jóg jaamu yàlla yaram wi dal di metti mu toogaat dal di na yàlla man dey ak lor laal na ma te yow yaa gën a yërëm képp ku yërëm ba nga xamee ne lor googu jot na ko nag eggul fi nit ñuy wax naan mu saxe ba buñ ko weeree sax yi di ko wat delloosi ko ci ker gi na tub ayo ba yegguloon foofa ndax yonent yi loolu du leen dal danañu feebar waaye feebar buy wàññi ci ñoom dara ci yaram wala cër duñ ko am laysa mu addiyan li naqsin kal marad loolu mooy tawxiid loolu lay wax ne waskur jàngatal abdanaa sunu jàmba ayub isnaada ba mu wooyee rabboo boromam ne yàlla ani man dey massani laa laalale na ma massaniya laalalee na ma a cheytaan bi nasabin ci coono cheytaane yi laalalee nañ ma ay coono ak i meeb métit wa adabin mbugal ak mbugal yàlla ne ko urkud na nga dóor sa testin kët daal birij li ko sa tànk mu daal di dóor tànkam ci suuf ndox ne jël la génn yàlla ne ko haasali moo tasalun ndox mu ñuy sangoo la baari mu di aji sedd wa sharaabu nag naan sangol ci ndox moomu te naan ci rek dal di wér feebar ba ko jot docteur Najaar nee na feebaru dermatologie la muy al amradul jildiya feebar buy nekk ci deru yaram wi dafa naqaree faj te metti mu ne feebar boo boo ko daloon waaye ñu ne ko boo ci naanee te sangu ci mu dal di wér ba mu këddaa ci suuf ndox ma génn maadinul kiimaawi la wala maadinul kibrit la muy ndox moo xam ne day sedd wala day tàng te di faj mu dal ci naan sangu ci mu dal di wér boo am naa may nañ la woo ñeel ko aalahoo ñoñam fekk na amoon na nattu yu ko daloon jabaram yi faatu woon ak doomam ya faatu woon ba mu desee kenn wa mislaw ma kemam gannaaw gi mayaat nañ ko ñëpp maa mu ànd ak ñoom rahmatan yërmaande la min naa bàyyi ko ci ñun wa dikra ak waar la li ulil albaab ñeel borom xel yu sell yi ñu ne ko nag jabar ji nga ne woon da nga ko dóor téeméeri yar nag yow ku baax nga doo fen doo teñu kon da ngay boolee téeméeri yar ba mu nekk aw say nga bàcce ko ko rek mu ne waxut jàppal biyee dikk ci sa loxo dirsan sayu matt fadrib dóoral biyeeg moom ndaw si wala taxnas waaye yow bul teñu innaa ñun wajadnaaw fekk nañ ko saabiran muy aji muñ neema baax na al abdu jaam bi mooy ayow innahu moom awaabun delluwaa koon la ci boromam mu del si ci ibrahim waskur tuddal ibadana suñ jaam ya ibrahim ak ishaq ak yaqub ulil aydi ñooy borom kattan la wala ba saare xam-xam ba innaa ñun axlas naahum sellal nañ leen bi xaalisati dikra bi xaalisatin cig sell mooy lan dikra daari tudd kër gu baax ga wa innahum ñoom indana fi ñun yàlla laminal mustafayna bokk na ca ñuñ tànn ña alaxyaar ña di tànneef waskur tuddal ismail ak ilyasa ak zalkifli zalkifli benn yonente la woon boo xam ne cib nattu ci la ko yàlla yónnee zalkifli dafa am benn jigéen bu muy dajee am yu ñuy def te kooko nekkul soxnaam da koy fay nag benn bés mu wut kooka gisu ko mu wëri keneen rek wër a wër ba gis kenn wax ak moom ci juróom benn fukki dinaar la ko war a fay mu jox ndaw si ndaw si fas ay dinaaram sol kii li jege ndaw si nag ba tiim ko ndaw si dal di jooy mu ne ko looy jooy dama la cee forcé mu ne ko déedéet mu ne lim lim juboo ma fay la ko da nga caa jubawut mu ne ko déedéet mu ne ko looy jooy nag mu ne dama damay def loo xam ne mësuma ko def te bëgguma koo def ñàkk ma ci dugal loolu laay jooy loolu kii li jóg taxaw daal di ne ko may naa la dinaar yi ma la joxoon mayit bàyyi naa ko duma ko defati feek maa ngi dund ngir yàlla moomu nga xam ne moom nga ragal yàlla ne ko tànn naa la tey yónni naa la kookoy zol kibli moo tax mu ne kulun képp mi ne la xiyaari bokk nañ ci ñuñ tànn haasa lii zikrun ak waar la waaye ne lil muttaqiin naka ñeel na way ragal ñi yàlla xusna maabin rafet ak dellu jannaatu adnin aljanay adnaan mufattaxatan bu ñu ubbi lahum ñeel leen ala bu ab bunte ya mu takki na ñu di way sukkandiku fiyaa foofale ci ay lal yadauna dee danañu woo fiyaa foofale bi fàkkeetin ci fay téef katiratan yu bari maanaam lépp lu ñu mébét ñu jox leen ko wa sharaabin ak naan wa indahum nekk na fi ñoom xaasiraatu tarfi jigéen ñoo xam ne way gàtt ay bët lañ duñu xool lu mooy seen i jëkkër atrabun ñu nekk dig maas tir bu bu ko bu ko arab waxee ñu koy firee ak maas waaye mooy ay njegemaar mooy jigéen ju ndaw ju daairatu sadiyey ni ween yi tàmbali na màgg te matagul loolu mooy tirbu waaye mu ala atrab haza lii maa tuwaduun mooy la def na dal leen ko liyawmil xisaab ci bésab xisaab inna haza lii la risquna suñu wërsëg la maa lahu de di ñeel ko min nafaadin ci ak jeex léegi nag waa safara ñooy xul di xuloo waaye kan la ñuy xuloo seen borom la ñuy xuloo wala seen bopp wala safara ci boppam nga déglu ko mu ne haasa jàppal waaye na li taaxiina naka ñeel na way bew ya la charra maabin kees ji delluwaay mooy lan jahannama safara yaslawnaha la ñuy jaaru fa bii sa bon na almihaadu lal ba hada lal baa ngoog fal yazuqu fal yazuqoohu nañ ko mos xamimun ndox mu tàng la wa gasaqun ak dëtti wànjar wa axaru ak leneen min shaklihi lu nekk ci melokaan woowu azwaajun loolu yépp ay xeet la hada lii fawjun ak maas la muqtaxim boo xam ne aji bëttante la ku ne yaa ngi bëtt sa morom di jaxasoo ci biir safara wi maakum ànd ak yéen yéen day laa marhaban bikum kenn yaatalul leen file innahum ñoom la saalu naari way jaaru safara lañ xaalu ñu nga naan ballu fi nekk antum yéen it laa marhaban bikum ñu ngay fayu antum yéen xadamtumoohoo lana yéen ñu fi jiitu fa bii sa bon na alqaraaru saxwaay ba xaaloo ñu nga naan rabbana yàlla man qaddama képp ki nga xam ne moo ñu jiitu la naa ñeel ñu azali maanaam ki ñu yóbbee lii mooy man qaddama ki ñu tegal lile ki ñu indi file fasidhu dolli ko aadaban mbugal deefan mu di mu ñu fulande fi naari ci safara wa qaalu ñu nga naan maala naa loog ñun laa naraa ñun de gisuñu rijaalan ay gaa yoo xam ne ku naa nekkoon nañ naudduhum di lim leen ci àddina min al ashraari ñu bokk ci kees ya ñu bokk ci ñaamul solo ñu yées ci mbindeef yi ci àddina ndax amuñ dara taquñ dara fii ñu ñëw safara gisuñ leen ñoom xanaa dañoo dem aljanna attaxadnaahum xanaa dañ leen jàppoon suxriyan yu ñu reetaan ci àddina wal ba looloo tax ñu dem aljanna waccanu fi am zaaxat wala suñ bët yi dafa jëngaanum ci ñoom alabsaaru gisi wala dañoo xool tànguk safara tax gisuñ leen yàlla ne ina zalika loolu dugg safara di seet koo xeeboon mu nekk aljanna nga nekk safara nga di ko wër yaakaar ne yaag moom a yem ina zalika loolu la xaqun dëgg la taxaasumaalu naari mooy xulóob xulóob waa safara bàyyi na loolu mu ñëw ci ay tegtal yuy wane dëggug yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nequl waxal ne innama ana naka man mundirun aji waar la aji waare la wa ma min ilaahin amul yàlla ilallaahu lu mooy yàlla alwaaxidu kay kenn alqahaaru ka dim na tàkkoon rabbu samawaati kay borom asamaan wala deg suuf wa ma baynuma ak li ci diggante bi al aziz ku daa ji not ci kattan al gafaar ku daa ji bale qul waxal ne huwa moom naba un lool solo la azimun bu daa ji màgg antum yéen mu'riduna way daddu ngeen an walis ko maakaana yelut lii ñeel ma maakaana nekkul lii ñeel ma min ilmin ci benn xam-xam nag bil malayi l ala bil malayi ci mbooloo ma al ala bu daa ji kawe du ma woote mukk ne man duuma nit duma wax it ne malaaka laa duma wax it ne xam naa xaybu duma wax ne xam naa malawu l ala wala fekkee naa ko id yaxtasimuuna waxtu wa ñuy xuloo in yuuxaa naka def na wax yu ilay jëm ci man ne innama ana man nazirun aji waare laa mubinun ku daa ji bir bàyyi na loolu mu des ci qissatu binduk aadama ak ni ko yàlla teralee waxoon na ko ay yoon da koy baamtu is qaala ba waxee rabbuka sa borom lil malaikati ñeel malaaka yi ne inni man xaaliqun aji bind laa basharan bindeef min tinin mu bàyyi ko ci ban fa ida sawaytuhu ndem yemale naa ko wa nafaxtu ma wal fii ci moom min ruuxi sama ruuxu fa qaawu rot leen saajidiin ngeen di way sujjóot la oo ñeel ko fa sajada sujjóot na almalaayika kulluhum ñépp ajmauna mboole seen illaa iblisa lu may iblis moom du malaaka gaa jinne la waaye moom ñoom ñoo fa nekkoon istakbara rëy rëylu na wa kaana mu nekk min alkaafirin ci yéefér yi qaala wax yàlla ne yaa iblis o maa manaaka lan moo la tere an tasjuda nga sujjóot li ma xalaqtu li ma bind bi yedda yegg samay loxo mooy sama kattan istakbarta ndax rëy rëylu nga am kunta wala nekk nga min al alina ci way kawe xaala mu ne waaw ana man xayrun maa gën minu ci moom ndax xalaqta nii bind nga ma min naarin ci safara wa xalaqta woo nga bind ko moom min tinin mu bàyyi ko ci ban xaala wax yàlla ne kon faxruj génnal mi naa jógee ci aljanna fa innaka yow rajimun ku ñu dàq nga way naa aleyka war na la laanati samam sànj ilaa yawmi ddiin ba bés bi ñuy fay jaam yi xaala mu ne rabbi yàlla fandir nii kon muñal ma ilaa yawmi yubaasuun ba bés bu ñuy dekki dafay nax yàlla ndax bu xaaree ba dekki kon du deeati moo tax mu ne muñal ma ba ba ñuy dekki xaala wax yàlla ne fa innaka yow kay minal mundarin bokk nga ci ñu ñu muñal ñi ilaa yawmil waqti ba ca bés baag waxtu wa almaalum bi ñu xam rek xaala mu ne kon fa bi izzatika yàlla ci sa kattan la waxu yannahum danaa bewloo nit ñi ajmaina mboole seen boo leen di dekkal da nga fekk aktarahum fasiqun ilaa ibadaka lu may sa jaam ya de minum ci ñoom almuxlasin ñu selal ña ñooñu mënuma ci ñoom dara waaye ku ci sellul boo koy dekkal ëllëg da nga fekk du la du la sant xaala mu ne fal aqu dëgg moom laay wax wala àq dëgg aqulu laay wax la am la an na danaa feesal man yàlla jahannama safara min ka ci yow iblis wa mi man tabiaka ak képp ku la topp minum ci nit ak jinne ajmaina mboola seen xul waxal yow muhammad ne laa asalukum man de laajuma leen ale yi ci topp gi min ajrin ci yool wa ma ana den man min almutakallifin ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy jéem a toggoo lan mooy toggoo def takalluf mooy jéem a yenu loo mënut woote loo xamut yenu loo mënut ne yàllaa ma yónni te yónni wuñ la man nag du ma def takalluf man liñ ma wax rek lay wax in huwa déen moom illaa dikrun lu may muy waar lil aalamiina ñeel bindeef yi wala taalamuuna da ngeen xam naba'ahu ay soloom baada xiinin gannaaw jamono gannaaw jeex ak dig bi gannaaw ab diir ci jamono da ngeen xam yooyu solo suratu zumari saaru mbooloo ma danañ ko tuddee suratul xurafi makka la wàccee saar wi dafa mel ni suratu saat moo continuer ñoo niroo wax ak waxiin moo tax buur ne tanzilul kitaabi wàccuk téere bii mi ne laayi bàyyeekoo na ci yàlla al azizi ku daa ji not ci kàttanam al hakim ku daa ji xarala innaa ñun anzal naa wàccee nañu ilayka ci yow al kitaaba téere bil xaq ci dëgg faabud jaamul laaha yàlla muxlisan ngaa ji sellal loo ñeel yàlla dina topp alaa dëgg lillaahi ñeel na yàlla diinu diine alxaalisu ji daa ji sell wala dina ñi nga xam ne itaxadoo jàpp nañ min dooni yi lu dul yàlla awliya ñuy méngoo seen mbir te boo leen laajee ne waaw yéen ñi ngeen doxale seen digg ak yàlla ñu méngoo seen i mbir nag xanaa ñooñu ngeen teg yàlla ñu ne déedéet duñu yàlla waaye ñooñu ñooñuy yeggali ci yàlla ndax ñun mënunoo yegg ci yàlla ñooñu ñooñuy jottali mu ne loolu jaamu xirama yem boo leen laajee ñu ne maa naabuduhum jaamuwuñ leen illaa li yuqarribuuna dañoo bëgg ñu jege jege jege ñel ñu zulfa ak jege ina laay jëm ci yàlla ina laa yàlla yaxkumu day atte baynahum seen diggante fi maa hum ci laa ñoom muxtalifuuna way wuute lañu fii ci loolu ina laa yàlla laa yaadi du jubal man huwa kaa moom kaadibun aji nar la kafaarun ku day ji weddi law araada laahu bu bëggoon yàlla an yattaxida muy jàpp wala dan doom kon mu jël ci doom yi gën a baax lastafaa kon mu tànn li maa yaxluqu ci li mu bind maa yashaa'u lu ko neex waaye yàlla amul doom subhaanahu sell ñeel na ko ak jomb huwa moom allahu mooy yàlla alwaahidu mooy kenn alqahaaru mooy nataakoon xalaqa bind na asamawaati asamaan wal ard ak suuf bil xaqi ci dëgg yu kawiru yàlla mooy ki nga xam ne dafay dindi tekwiir mooy lu tegu woon nga ñori ko yu kawiru day ñori leela guddi ala naari ci bëccëg wa yu kawiru mu ñori naara bëccëg ala leeli ci guddi wa saxara mu tàggat shamsa jant wal xamar ak weer kulun képp yejri day daw li ajalin ba cib dig musamman buñ tudd ala waaw yeey huwa moom al aziz mooy aji not ci kattanam al ghafaar mooy aji bale xalaqakum bind na mu leen min nafsin ngeen bàyyee ko ci bakkan waahidatin ba di benn mu di aadama su ma jaala mu def minaa ci aadama zawjaha jabaram ja génn ca wa anzala mu wàcce lakum ñeen leen mina lan ami ci juru kër gi tamaniyata aswaajin juróom-ñetti xeet mu di gëlëm nag bay xar ñeent bu ci ne góor ak jigéen muy juróom-ñett yaxlaqukum bind na mu leen fi butuni umaatikum ci seen biiri ndey xalqan ngeen nekk mbindeef min baadi xalqin gannaaw bu ñu leen bindee ngeen di deret fi dulimaatin ngeen nekk ci lëndëm ya salaasin yoo xam ne yett la mu di yetti lëndëm lëndëm ak roxo gi roxom gi nga xam ne ci la nekk ak lëndëm ak biir bi ak butitu njurókaay bi nga xam ne moo ko téye yooyu yëpp nga nekk ci yow nit zalikum ki leen def foofu ngeen di fa dunda du ngeen dee allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom law ñeel na ko al mulku nguur laa ilaa dit benn buur ilaa walu mooy moom fa ana tusrafuun ana fan defi soppi leen in takfuroo su ngeen weddee fa inna laa nak yàlla ganiyun aji doylu la ankum ci yéen wala yardaa du gërëm li ibaadi yi ci jaamam ya al kufr ak weddi wa in tashkuroo su ngeen sante yardahu gërëm ko lakum ñeel leen wala taziru du yenu waziratun bakkan buy bakkaar wisra uxra bakkaarub kenn ki suma marji'ukum seen delluwaay ila rabbikum jëm na ci seen borom fa yunabbiukum mu solo leen bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon te amaloona di def ko innahu yàlla alimun aji xam la bi daati suduri ci li nga xam ne moo nekk ci dana yi te mooy xol yi mu ñëw ci ki gëm ak ki weddi mu ne wa ida massa ndem laal na al insaanu nit durun lor wala mu di xiif wala coono daa nga gis ko muy ñaan rabbahu boromam mu ni ban muy aji dellu ilay jëm ci yàlla su ma isa xawalahu su fekkee yàlla jox na ko nicmatan xiiwal minhu gu bàyyee ko ci yàlla nasiya mu fàttee maakaana la mu nekkoon yaddu di woo ko ilay jëm ci moom min qablu la mu doon woo yàlla yépp ak di ko jaam mu fàtte ko wa jaala mu def lillaahi ñeel yàlla andaadan ay ndend moo di bokkaale li yuddilla ngir mu réeral an sabili ci yoonam qul waxal ne tamattaa xiiwul bi kufrika ci sa kéefar qalilan tuuti innaka yow min ashaabi naari bokk nga ci nitu safara ya aman huwa wala kaa moom qaanitun aji jaamu la yàlla ana alayli ci digg guddi saajidan muy sujjood wa qaayiman muy taxaw yaxsuru muy ragal ak wattandiku alaxirata alaxira wa yarjoo muy yaakaar ca loola rahmat rabbi jërimaanday boroom qul waxal ne hal yastawi ndax dana yem lazina ñi nga xam ne yaalamuuna ñooy xam wala lazina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu ñooñu yemuñu innama yatadakkaru naka dana waaru ci lii ulul albaab borom xel yu sell yi bay na lool mu ñëw ci taqwa ak sellal taqwa ak wattandiku jaamu seytaane mu ne qul waxal yaa ibaadi yéen sama jaam yi lazina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ itaqu ragal leen rabbukum seen borom li lazina ñeel na ñi nga xam ne ahsanoo rafetal nañu fi haadi dunya ci jile àddina xasanatun njekk wa ardullahi suuf si yàlla si waasiatun aji yaatu la innama yuwaffa naka def na matal saabiroon way muñ ña ajaroom seen yool bi xeyri xisaabin ci loolu benn xisaab xul waxal ne inni man umirtu digaleef na ma an abuda may jaamu laa yàlla muxlisan may aji sellal loo ñeel ko diin ak topp wa umirtu digaleef na ma li an akuna may nekk awwalal muslimina njël bee nag ñi nga xam ne ñoo wamatu ci yàlla xul waxal ne inni man dey axaafu dinaa ragal ina asaytu ndem mooy naa rabbi sama borom adaaba yowmin mbugalam bés adimin bu daa ji màgg xul waxal ne allah yàlla abud laay jaamu muxalisan muy aji sellal loo ñeel ko diini sama topp faabudoo jaamu leen maa siitum lu leen neex min dooni lu dul yàlla xul waxal ne inal xaasirin naka way perte alladina mooy ñi nga xam ne xasiroo perte nañ anfusahum seen bopp waalim ak seen ñooñ yowmal qiyaama ala dëgg dalika loolu huwa moom alxusraanu ma dik perte almubiin guddaa ji bir lawum ñeel na leen min fawqihim seen kaw dulalun ay niir moo di keppaar yoo xam ne keppaari saxar la min annaari ci safara wa min taxtihim dulalun yeneen keppaar dalika loolu yu xawifu day ragal loolu laaw yàlla bii ci loolu ibaadahu jaamam ya yaa ibaadi yéen samay jaam fattaquuni ragal leen ma wala dina ñi nga xam ne ittanaboo teet nañ taaxuuta iblis an yaabuduha ba ñu jaamuwat ko waanaa boo ñu dellu ila laay jëm ci yàlla lawum ñeel na leen albushra mbik fa bashir bégalal ibaadi sama jaam yi la dina ñi nga xam ne yastamicuuna ñi ngay dégg alqawla wax fa yattabicuuna ñu topp ahsanahu la ci gën a rafet ulaayika ñooñu la dina ñooy ñi nga xam ne adaawum laaw jubal na leen yàlla ulaayika ñooñu hum ñoom ulul albaab ñooy borom xel yi sell yi afa man xaqa ndax ku ey na alay ci moom kalimatal adaabi baatam mbugal mooy bi yàlla wax ne da koy lakk ndax kookal loo ci mënati avaanta ndax yow tunqisu yaa mën a musal yaa mën a xettali man fi naari ñu nekk ci safara laakin waaye la dina ñi nga xam ne ittaqaw ragal nañ rabbuhum seen borom lawum ñeen la leen xurafun ay taax min fawqiha nekk ci kawam xurafun yeneen taax mabniyatun yu ñu tabax tajri di daw min taatiyaa ci suufam al anhaaru yoli yent waad laay dëlab yàlla ngi laa yuxlifu du wutee laaw yàlla al miaada abdal bàyyi na loolu mu ne àddina nii la mel ma ngi waxeeg àddina mu ne alam tara ndax xamoo ne ana laa naka yàlla anzala wàccee na mi ne samaa yi ci asamaan maan am ndox fasala ko mu sóob ko yanabia ca xeeti xuriyaag yol ndeya filaar di ci suuf bu tawee yooyu ñooy jël ndox ma su ma yoxriju mu génnee bii ci taw zaraan mbay muxtalifan aji wu boo xam ne aji wuute la alwaanu woo meloom su ma yahiju nga gis ko mu rafet fataraaw nga gis ko musfaran muy aji gel su ma yajaaluhu mu def ko xuttaaman mu di matt inna fi zalika nakaa ji nekk la ci loolu la dikra ak waar li ulil albaab ñeel borom xel yu sell yi mu ñëw ci leer gi nga xam ne bu duggee ci doomu aadama xolam dal di ubbeeku lislaam man ci dugg soo ko waaree mu dal di waaru mu ne loola yàlla moo ko yor moo yoree xolub doomu aadama mu mel ni da koo def ci diggante ñaari baaraam di ko walbatee nu ko neexee waaye xol bi yàlla ubbi bu déggee waxu yàlla aw yaramam daw bu déggee waxu yàlla aw yaramam dal di nooy ab xolam dal di toroxlu ndax ragal am mbugalam loolu lay wax ne afa man sharaxa ndax ka ubbi na laahu yàlla sadrahu dënnam te moo dib xolam lil islaam yi ba mu jëm ci lislaam fa huwa kooku ala noorin mu nekk ci leer min rabbihi gu bàyyeekoo ci boromam kooku du yem ak ka ca des waaye fa waylun mbugal nag lil qaasiyati ñeel na aji wow ja qulubuhum seen xol ya min dikrillaahi ci tudd yàlla ulaayika ñooñu fi dalaali ñoo nekk ci réer mu binin guddi aji biir allahu yàlla nazzala wàccee na ahsanal xadiisi gën jaa rafeti wax te moo di alquran kitaaban téere la mutashaabihan boo xam ne li muy wax day niroo ndax da koy takraar li muy wax dafay niroo da koy baamtuwaat masaniya mu di lu ñu ñaareel xissa bu mu xissa ñaare waxaat ko wax wax ju mu wax baamtu ko ndax nga dégg ko taq shairu dana lemu min wu ci alquran juloodu ladin deru yaram yi ñi nga xam ne yaxshaw na dañuy ragal rabbuhum seen borom summa taliinu toppa nooy julooduhum seen der ya wa qulubuhum nooy it seen xol ya ila dikrillaahi jëm ci tudde yàlla dalika loolu hudallaahi mooy njubum yàlla yaa di muy jubal bii ci loolu man yashaaw ku ko neex wa man yudlilillah ku réeral na ko yàlla fa maa loo de di ñeel ko min haadin jenn aji jubalati afa man yattaqi moo ndax koo xam ne dafa ragal bay teet bi wàcc yi ci anamam mu cay ragal soola adaab ñaaw ak mbugal yowmal qiyaama wa qiila waxeef li daalimiin ñeel way tooñ yene dooqoo mos leen maa kuntum la ngeen nekkoon tag si boona di fàggu ko kaddaba weddina alladina ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu faataahum dikkal leen ala adaabu mbugal min xaysu laa yashcuruuna fu fa fu ñu yëgut fa adaaqahum mosal leen laahu yàlla alxizya toroxtaane fi lxayaati ci dund bi duniyee bu daa ji jege wala adaabul axira mbugal may ñëw nag ci alaxira akbar moo gën a màgg fii law kaanu yaalamoona su fekkoon ne xamoon nañu ko léegi mu ngi léeb lan lay léeb dafa njëkk a tudd tabaraka wa taala yàlla kàttanam muy léebal nit ñi ci téere bi julit bi nga xam ne dafa wéetal yàlla ak yéefér bi nga xam ne dafa sàkkal yàlla ndend nu mu koy léebee mu ne benn waay la bu ñaar moom benn jaam bu ñaar moom te ñaar yi ñi ko moom bokkuñu xalaat bokkuñuy bëgg-bëgg bu kii ne ko wutil xanc kii ne ko wutil ñax jaam boobu fan la jëm ak nan lay def ba pare mu nekk ñaar ñu ñaaw jikko ku ci nekk li mu wax boo ko deful rek boo ñëwee mu alag la mu ne ndax jaam boobu dana am jàmm du am jàmm fenn mu ne loolu mooy ku yàlla nekk sa yàlla nga wut keneen segg fa mu ne léegi am nga ñaari yàlla bu la kii santee lii kii sant la lii nan ngay def masalan boo jëlee kenn wala lenn nga fonk ko teg ko ni yàlla mu tol ni yàlla yàlla ne jullil wooral kooku ne bul julli bul bul woor léegi nooy def boo toppee yàlla ba kooku am sànjam kooku boo toppee kooku ba yàlla am sànjam yàlla léegi na nan ngay def mu ne kon nag borom benn buur ak borom ñaari buur noonu la ñu mel kee du am jàmm mukk mu ne wala qad darab naa sadd nañu li naa si ñeel nit ñi te jaamu yàlla moo gën a yomb jaamu sa morom ndax sa morom li muy bëgg day bari benk ñenkeem dafa bari te yàlla nag moom li mu wax moom benn rek la mu dal di jeex moo tax mu ne wala qad darab naa sadd nañu li naa si ñeel nit ñi fi haazal quraan ji li alquran min kulli masalin léeb bu nekk indi naa ko laalum ndax ñoom rek yatadakkaroona ñuy waaru lu nekk rek waxee naa ko mbir mi ndax ñu mën ko dégg waaye ñoom mel ni dégguñu quraanan alquran la arabiyan arab la xayri si ay wajën dëngul laalahum ndax ñoom yattaquuna ñu ragal yàlla daraba laahu sadna yàlla masalan lépp rajulan benn waay la fii nekk na ci moomam shuraka ñu koy bokkaale mutashaakishuun ñoo xam ne ñu ñaaw jikko lañ ñu wuute ay jikko lañ kii jëm nii kale jëm nale kii bu dëngalee jëm nale kale itam dënga jëm nale ñu nekk daal mutashaakishuun ñu safaanoo ay jikko te ñaaw ko la wa rajulan boo ko dendalee ak beneen waay salaman buñ jébbal li rajulin ci kenn moom ko hal yastawiyaani ndax yem nañ masaleen ci misaal nga ne ko yemuñu mu ne kon nag alhamdulilah dégg nga li ma doon wax ballu fi nekk ak tarum ngeen jëbëri seen laa yaalamuuna lool leeral leeral duñ xam li nga bëgg a wax waaye wax na ko innaka yow nag mayitun aji aji nar a dee nga wa innahum ñoom ñëpp itam mayituuna way nar a dee lañu su ma innakum topp yéen ñëpp yawmal qiyaamati bés penca taxtasimuuna da ngeen di xuloo inda rabbikum seen borom ku nekk wax li ko indi fii ku nekk wax li mu def nan la ko defee ak fan la jaar sadaqallahu al azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammadin وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واغد فقراءنا اللهم انصرنا ولا تنصر أحدا علينا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا